lu am rek yàlla li nuy ut lépp yàlla ko moom moo koy may innal fadla bi yaddillahi yuti man yashaau walaw dul fadlil azim te ngëneel mu ci loxol yàlla moo koy jox ku kon yàlla moomu ci la ñuy doore ci ubbee baat bi nga xam ne moom la taamoo ubbee ay kàddoom alxuraan bismillahi rahmaani rahim la yàlla jiite la ci ay kàddoom digal nu nag nun ni ko di ko ubbee sunuy kàddu sunu jëf yëpp yonent bi ne kullu amri zi baalin lam yubda bismillahi rahmani wa naafasun jëf joo xam ne yaa ngi ciy dugg muy wax muy jëf te di ci loo ci bismillahi rahmani rahim wax jëf jooju moom barke ba dog na di ñaan yàlla barke boobu nag olof naan bari la barkeel lee tëdd sunu kàddu yi mu néew mu bari yàlla na ko yàlla barkeel sunu jataay bi yàlla barkel ko de la dalal jamma ci keur bi nga xamne du première fois bi xana kay dañ wax na ku bot mbuki xaj bëw la <laughs> tey ne daa nga fi ñew ba dem du bari rir waye tay dafa am loolu uy ci lo xamne mo wara rir mi bari ndax appel ñew nga fi fekk ma ci suuf saal ci suuf ñuy paré dem cérémonie officielle boobu yow rek yaa ndawal wala xëy na ñi nga àndal bariwul ñuy déeyante nii jëflante ba nga fi jëkkee ñëw timis laa la jiite man ak sama taawu yaay ñu fa jógee la riir attaque ndax si lañu ñu attaqué sa kii ba fale yooyu ay symbole la yoo xam ne wane ne tey du la peine dégg bi njabootu sëñ Ablaay génne àdduna da nga jëkk kàmbareen nga ne leen nag damay seeti suma xarit porte-parole bi nga ñëw ndeysaan ñu waxtaan jëflante nan daan def rek ah kon boo fi ñëwee tey doon nga ko waaj fekk dëkk bi xat si ngay xam ni am na soppeeku bu am loolu dañ koy nangu nit bu dee da ngeen am da am diggante da ngeen am ak kóllëre bu jamono changé rek danga koy topp ca noonu am na waxee moom ngir lolo baña don lor ci mom ludul don xewal ak jàmm ci ndax man fat kat ñew na si man tay sama khalifa ngi teju gendo mom non la ko yalla bind ci top ci mom imam bashir danaka ëpp nañ wéré at gendo yalla jël natt bi nak yan ma ko la xam nga li nekk ci jité mbolo bu la sax bo ñen nañu def ko hmm? ah bo waxoon safa nit ñi la bëgg dal dikoy def jàmm non la dina tedd bu ko defee daanaka ñu xaw a bokk nu nuy dundé mais man comme yalla baax na diglu nga sama discours boy set avocat Sénégal la man dama taxaw taxaway sol mbubu avocat di plaider sama réew man muy Sénégal donc acteur yépp ku sama waxtaan ndax tay ken ñaanul yàlla jiite réew moo xam ne fitna rek fay am doo xam doo ànd ak sago bi nga bëgg a jiite sax doo kon li ñu war ñun en tant que niti diine te bu neexee ah alhamdulilah mais bu naqaree ñun ñooy dese njaboot toujours boo dégloo samay waxtaan dinaa ne ndakaaru de ñun ñoo war a ci bëggal jàmm réew mi ndax ndakaaru bu doon tàkk depart de feu fii lay yàlla dafa dogal damay wax naan soo maam fekkiwul kenn dañ ko fekk amuñu feneen kër fii rek la ñu am bu doon tàkk fan nañu ñëw xanaa ne la doo ma fat Casamance waaye <laughs> ba ma fay ma door ah? Ah? ah waaw donc loolu la kon fii ñun li nu bëgg mooy jàmm te soo jabootee ñëpp sëriñ li ka tax a sonn li tax sëriñ sonn mooy ñëpp la jaboote fenn fu ne am nga xam njaboot te lu metti la yow li ngay defaan foo toog li nga defaan rek ngay defaan amoo su loo ciy calculé keneen ko lool waaye sëriñ bi ñoom ñëpp mu bëgg na coordonné loolu la bëgg cee wax loo xam ne essentiel ba lay lay attirer attention ku ne ca ñooñ mooy lenu boole xam nga réew mi dañu xamul mais ay ennemi amu fi ay adversaire politique ñoo fi lu leen lan moo indi loolu mooy ni dañu bokk benn bëgg bëgg mais pourquoi ñuy xuloo ko xeex ba ki dara ente benn bëgg-bëgg mooy defar Sénégal bu fekkee looloo nu animé laa wax de xawma leneen leneen mën na ne parce que nit dafa lëndëm mais bu dee li nu animé lenn rek la mooy bëgg sénégal war ñu mëna jot bu dee itam ay jullil lañ doon ci ay chrétien ñu gëm benn yalla gëm ne mom moy mayengo bu la doon fekk ci mpaxit dina la fa génné jox la ngo kaw nelson mandela daf ma yéem ba tey ku jóge ci prison nek dem dugg ci palais 25 ans après 25 ans après yo. ay njàngat la yoo xam ne nit ñu ñuul ñi war nañ ci bàyyi xel beneen bi euh, dafa am beneen tubaab te ba lañ wax defe naa mu ne nit ñu ñuul colon yi sax xamuñ ne ñoo gën ci ñoom ndax ku leen bàyyi woon ñoom ci seen biir duñu fa nekk lu dul xeexoo rek ba def un dal sax seen développement loolu war nañu metti beneen bi ñu ne dafa am tubaab yi ñoo koy nettali noo ko saboote man bama ma marok di jang gis buñu rombé ñu duñu traité de jam la nit ñi di xamé ñu maam maam ak bu señ Tuubaa nit ordinaire ñu génn ñu nazi la nga tàmmoon ñu di la magal di la teral di yotu sa loxo di fon man ah li daal war na tax ñun ñepp ñu fonkante ñun ñi nga xamné xéet xeetu ñul apartheid lan la ñu wéx ni bañ ñu ñul est-ce que ñun ñi nga xamné ñoy xëccu pour yor sunu réew yoreen bu rafet est ce que waroon na bàyyi xel te xam ne bu ñu demoon bay xiiroo xanaa yi ñi ci biti ñoom ña nga ñuy reen nii rek la ñoom ay dof lañ ñoom xamuñu lu dul xeex xulu te yoruñu dara lu doy damay faral di wax ne nit boo meree am na noo mën a fisale sa mer te doo yàq parce que li nga yàq yow yaaka moom du li nga yàq yaaka moom ku yor dara nag di ko xeeb boo ko yàqee foo jëm ka nga yaakaar bu ñëwee defal la la nga bëgg boo fi fekkul dara nan la la koy defal nit loo amul mënoo ko maye te lii lañ mus di wax nit ku ne nag sañ nga loola naqari nga taxaw yëkk sa kàddu wax ca du rek mais ni bàyyi xel réew dama wax barke démb ne ndaw si jëkkër ji da ko dóor mu ndaw di làqu ci si baay bi baay bi faax xëyar dóor ko nekk soo demee nel sa jëkkër moo dóor sama doom dóor naa jabar baay bi foofu cëru doom la mais dafa bëgg a wax jëkkër ji nekk kii nga dóor sa sax doom la de waaye yow yaay nag dóor na sama doom dóor naa jabaram ana dóori ci kan lay metti di su ko jigéen loolu laa bëgg attirer attention sénégalais yëpp que nañu bàyyi xel Sénégal que nañu bàyyi xel ne fekk amuñu jàmm la xew fële ci euh, Russie euh, ak euh, ah, Ukraine ak feneen ak feneen ba tey yàllaa ngi ñuy suturaat Sénégal li xew ci Afrique sax yëg seef lan la moo ko waral mooy mag ñi nee tey la xam-xam gën a bari waaye tey la dëngate gën a bari tey la ñeme yàlla gëna bari lu tax ñu ne mag ñi dañ daan def bu ñu la jàngalee pare defal la tarbiya yar la kon yéen muy ñun muy yéen ñun dañu war a yar njaboot yar leen mooy tax kenn ko ne boo jógee di ut da xam su ngay teg sa tànk fan ngir booy dox si ku tarxiif doo përëx përëx ne kon nga participer da ngay teg sa tànk ndànk di teg sa ndànk ba egg fi nga bëgg kon wóllëre gii dox sama digganteeg yow lu yàgg tey nag xëy na tey ñëpp a ngi ne tekk na seeti na Mamadou Lamine barke démb dégg nañ li Mamadou Lamine wax ndax dina waxaat leneen wax benn si lool nga ma loolu nga ma nawe nam nitu dëgg nga sa dëgg danga koy wax muy lëndëm muy leer muy nëbbu muy feeñ du dëgg naan instant bi comme ñoo xewle appel discours lu nañu suñuy discours ñu naa ah, bu Sonko ñëwee nag nan lay wax benn wax rek laay mooy ne Sénégal moo ñu nga beneen bi ñun ñoo war a nekk ñun sëriñ si avocat Sénégal parce que ñoom li ñu yor day jaay ancien président ancien ministre ancien leader de kii ancien mais ancien marabout dafa mësa am tay buma dundon ba genn aduna dañ nan li kat moy armée lu Mamadou Lamine surtout bàyyi la kon du jeex ginnaaw ñooy dese dese jabot gi nag nun langage bobu lañ war di tenir toujours kenn ku ne nak la nga def sa digënté ak sa su nit kooku sa digënté ak mom la ak yalla du deug kéro da nga ñëw fekk sama portable daanu ci bi tax na ne ma sëriñ bi nak waroo yor façon portable man man mën na sa a yëgu mën a sa utal ben de dinaa la no lo di mo set yoy doxoon na suñuy digante du dëgg kazalika keneen ak keneen nun bu nu sañoon Sénégal te man luma ci mën dox jël naa engagement bu dee ñima ko séqal ornal nañ ñun ñu jóg dox pour lay nek ci jamm ba ñu egg fa nga xawante nak fa lañuy falek di fal hmm? lu way gëm di ki nga ko fofu bàyyi ba dem ci loolu ngeen soxla yow loolu nga soxla nga soxla du xeexa mbedd nga soxla parce que du foofu ngay faloo fa ngay faloo nga soxla lu la nit yéene nga bàyyi lépp ba egg foofu dem dugalal la carte ñu génn la loolu nga soxla du dëgg ah, waaw keneen nit noonu nguur yàllaa koy may mo kay may ko ko somme bu koy jeexal ay ceen sax mënulaa ti donc fi ben goor dafa ne dafa tok ak sen sëriñu dara sëriñ bi ne len wa bu yalla don gane ci Sénégal ci ban kër lay dal ñi nakan jàkka ji ak yoy mu ne déedéet kër laa nak ah kër day xana xiyanu ci mën gindi mu ne bu ñu bu sama kër ñu ne fan la fekk ma sant jonn ñu ne jonneel yàlla ne bokk bu ñëwee ñu ne ah day lu tax ñu ne caw ñu ne borom kër gi caw la ah, am na borom man tax ñu ne kan la ñu ne ah fii day kër sonko ah kër gi na ah, man nga ñew fi ñu ne fi fan la ñu ne lay yàlla ne fuy lay ñun moy fi ñu askane yàlla mu ne kon nak fi la ko kon nag maam li loolu la def kërëm bi kër ak defu ko kër ak maam li def ko kër ak doomi maam li wala sëtam maam li kër ak ba pare jël nak fi mu tudd tudd ak jàmmalaay kon fi ben discours rek mo fi wër jup moy jamma ji sama maam am na faral bu ma wax bu may faral di wax temps yi la répétition est pédagogique parce que koy bu ko adduna jëpp déggoon dina am kenn koo xam ne mu sa mujjeel wax ci la koy door a dégg l'homme a tout inventé sauf la paix bàyyi ba nga dee mu ne la repose en la paix mais pourquoi si tàggoo rek la ñuy door door yéneen paix la penetum la penetum duk nyojok l'islamo yenyep ya momene assalamu alaikum que la paix soit avec vous loolu la kon buñu ñu nax sunu bopp ak ku musu si mën doon ci ñu li dal bi nga ne eh, deglu nga sama discours refet lu nga ko te àdduna jëpp deglu nañ ko dinañ ne ndax dama diw ak diw bu toogee kii ndax ne lay waxe bu toge ken non non dede non waxna banen non amuñu maam mu ñu musa jënd ñun kenn mënuloo jënd ndax am na maam mu ñuy jënd du rek kon nag li neex yàlla gën ci ñun ci loolu rek la ñu ne li yàlla lan la mooy jàmm mu ne inna diina inda allahi al islam diine daal ca yàlla lislaam lislaam lan la nga dikk dikk ko baatu jàmm salaam kon nag vraiment ku lay dimbali kuy dimbali képp ko xamne bëgg nga réew mi nekk ci jamm am teranga na dimbali kooku ci jamm limay wax sénégalais yi moy bëgg go bëgg nit famu safé safe ba nu égg fofu nga def nga def ko urné dafa na fofu lu ñëpp fofu ay atté mais bo bëggé sa kilifa do ko andil fitna ndax di nga dem ba xat fepp da fekk amana sax lolu yekewul amana sax likku la saw nit ñoo la dimbali wu rek da fa na ndax dégg ngeen bu baax samay wax donc ma ñaan sénégalais moy nañu nañu dellu wat seen xel te xam ne lu dul jàmm jàmmaaki dem lu dul jàmmar jàmmaaki nit nak boy andak mom da ngay xam ki liki yekki lan la nga jàppale ko ci loolu waaye doo ko jàppale yow ci ne nga gise yàlla sax kenn du ko jaamoo ci ne la neexe da koy jaamoo moom ci ni mu bëggee ñu jaamoo koo fi mën a dimbali bu ko dimbalee yow ni nga gise mais dimbalee ki moom dama la ma bëgg te defe naa ku jóg biir ut Sénégal wala ku yor Sénégal li ñu war a animé mooy jàmm Sénégal xéewul sax lii daal mooy suñu wax bi ceremony officiel bi ñëwee ba ma yobalee sama rakamaan bi baas si loo rek la motu adina àddina gépp nee nañu waa benn baat bi lañ am moy jamm parce que mo ñoy ñoy ñooy jamm lay donc suñu kaddu bu jëk ak gi mujj moy jamm lolu daan nu la kay ñaanal di ñaanal réew mi waaye nak ay effort personnel yo xamné mo wara mëna tax lolu am mo tax ñuy wax waat nit ñi delloo si waat la wa zakkir fa inna zikra tanfaul mu'min ñu ngi lay jaa ci falaat parce que tam bi mu demee ba xat sa xel génnul si noonu du doy xam naa ne xat na loolu rek siñ la déjà daf fi daan ñëw kenn du ko yëg donc bu demee ba ànd ak riir wi itam mu ñëw fi damay xam ne kii fa mu tegoon tànkam nga fa balee kaddu yuma ma koy yóbbante bu ma xëccee bunta teg ñu ne kat la wax bi teg la muy wax ak moom sa biir du benn sunu waxi bi rek sunu bi di benn tey waxam nga lo sen amna lo xamne nak ne nit ak nit la ak xarit morom mais dal limay wax nit ni moy ne ñepp delo ci waat xel be egg nak fa nga xamantene nak fa lañuy ñuy nak nag sax ñepp nak tay foofu wala sax do deug ma ngi gëreem ñepp di sante ñepp ah sunu mbokk mi it lu mu fi faram dëgg yàlla man sax xaw ma ko woon